yéen a ngi euh, yéen a ngi liggéey au niveau des populations que ça soit chrétienne catholique ou plan pour que ñu gën leen a sensibiliser par rapport à ces effets extérieurs ou en tout cas ces effets nouveaux yi nga xam ni ñu ngi commencé di dugg te peut-être sax mën nañoo dugg ci religion bi ba jox ko beneen interprétation bu bokkul ak yéen ni ngeen ko gisee. waaw ànd naa ci analyse professeur euh, euh, imam sànq wax na contradiction mënul ñàkk waaye mën nañu ànd. bañ a déggoog nit mais ñu def ko njëkk ci njëkk ak teranga je pense que c'est la courtoisie mën naa bañ a déggoog yow mais ñu wax ko ba vraiment nit mën cee ñaaw. mais pour ñi nga xam ne ni peut-être yàq moo tax a jóg par exemple comme. non non ni euh, ko ni peut-être yaa ngi wax ni peut-être ñi nga xamee ni. ils avaient de bonnes relations avant mm-hmm. am ñu wax ni continuer indiwaat leen si yoon bi peut-être du du metti mm-hmm. mais ñi nga xam il y li ma wax des influences extérieures yoo xam ne dugg nañu. ba pare sax ni ngeen yaakaar ni noonu la ñëpp war a doxee du doxee noonu est-ce que yéen a ngi xalaat nan ngeen mën a ñagee ñooñu pour ñu bañ a yàq par exemple cette entente bi existé. waaw dynamique bi dynamique bi yaakaar naa euh, ñëpp ñoo ñëpp ñoo ko war a soobandoo. mais ñun suñu ci suñu wàllu bopp. Mhm. suñu jëlee église catholique par exemple. dañoo yàgg sensibiliser nit ñi sur vraiment euh, la considération et le respect de l'autre c'est-à-dire que nit ku nekk da nga ko war a jox cër. Euh, ñoo ngi koy def ci suñu école yi école yi déjà. Euh, en plus de de la catéchèse en plus de l'éducation qui se fait euh, dañuy euh, sensibiliser pour que élèves yi ñu préparer wu euh, à la différence. donc bi déjà voilà, vous avez voilà l'église catholique ça c'est okay. de tout temps euh, daf koy def euh, ci les autres œuvres sociales. Hein, les œuvres sociales moom moo ngi mel ni Caritas. ak feneen église bi taxaw na. Mm. vraiment pour que ñu bañ a wax ne chrétiens yi kese ñoo am wàll ci lu ñuy def. c'est-à-dire que képp ku ñëw te mu nekk ci ci tolof tolof église ubbil na la la bët je pense que. Euh, ubbeeku ubbeeku boobu déjà voilà santé dans dans euh, euh, bi nga wax léegi voilà je pense que dans tous les domaines. Uh-huh. église bi dafa ubbeeku de sorte que képp ku ñëw am ci wàll. et regardez dans nos structures yenn sax da ngay gis ñëw benn musulman mu occupé benn poste stratégique. ça signifie que euh, suñ ko defee rek c'est pour wax ne euh, vraiment on est prêt à accueillir les gens dans la différence maintenant euh, wax nañu les les les nouvelles formes de religiosité hmm. loolu menace la menace la parce que ñoom quand il ñoom suñu ñëwee beneen message la ñu indi te message boobu day wuuteeg message bu fi maam bàyyi woon hmm. te boobu suñu préparé wul suñu doom yi suñu xale yi pour gérer situation bi. Mhm. Euh, yaakaar naa di day am problème. ñun taxaw nañ ci en tout cas conseil national du layga ak toutes les structures pour euh, jox loxo ñeneen ñi ñeneen mooy lan ñeneen religion yi. Mhm. Euh, ñoo ngi ak ñoo ngi dégganteeg waa Kudis mhm. ñu ngi dégganteeg imam yi te à travers abbé Alphonse Biram mi yor dialogue interreligieux fii de fii Dakar ñoo ngi ci dégg am waxtaan bu am solo. mais est-ce que également foofu te dinaa si interpeller imam. Mhm. est-ce que finalement euh, du ay waxtaan yoo xam ne ci kaw a kaw la. Mhm. nga xam ne wàccul au niveau des sénégalais. ah qu'ils soient catholiques chrétiens musulmans et tout ça mais bu fekkee ce sont les associations rek ñooy waxtaan seen kaw est-ce que dina wàcc pour que les sénégalais comprendre leen tax a jóg. waaw yaakaar naa boobu niveau bu am solo la. Euh, association yi euh, ñi leen di composé mooy leen ay individu individu yooyu ñoom ñoo nekk ba ci ci biir société bi. maintenant association yi suñu waxtaanee dañuy créer benn cadre boo xam ne ah ku ci ñëw rek gis sa bopp. Ah. te cadre boobu yaakaar naa Sénégal euh, war nañ ko taxawal entre les religieux. parce que demee dëkk bu mel ni Ouganda soo demee yeneen dëkk yi am na lu ñu tuddee conseil interreligieux mooy par exemple bépp diine bu yëngatu ci dëkk bi muy traditionnel muy. di day am tax day am ku koy représenté loolu lu muy lu muy lu muy indi comme yokkute day indi vraiment euh, au lieu ñu nekk dans une position de réactivité réactivité mooy lan wax ñëw na on joue sapeur pompier on se met position de proactivité maanaam lan euh, par exemple sociologue yi wax nañ ne attention suñu deful naag fissures yi dinañu euh, nasaxal suñu suñu suñu suñu dëkk après religion yi toog ñu ne ah ñun de waar wi lañ ci mën a béy ñu def seen proposition jox ko nguur gi ñu ne en tout cas lii su ngeen ko defee ñun pare nañ ci ànd ak yéen yaakaar naa loolu am solo te def nañ proposition bu suñu point de presse wax nañ ko mu leer. Euh, am na ñi ma ne euh, conseil interreligieux existe na Sénégal mais en tout cas ci sama. gisoo ko voilà gisuma ko te sentiruma ko même bu nekkee existe na foog ñu réactualiser ko ñu rendre ko fonctionnel su existé wul nag ñu wax vraiment président de la république yaakaar euh, war na ko mën a euh, taxawal mm-hmm. ñu taxawal ko de sorte que euh, ñëpp ñi nekk ci yeneen diine yi mën a toog par exemple évêques yi dinañu indi seen benn kilifa mu am imam tarixa yi indi seen kilifa ñu toog waxtaan te yaakaar naa waxtaan boobu dafa am solo mm-hmm. wax dëgg wax suñu waxtaanu rek maanaam amul ay cadre de manière yoo xamee ni euh, da ngeen di toog di waxtaan xam nga cadre yooyu kañ la am par exemple coow day ñëw euh, ñu ne bon nañu woote. spontané voilà spontané mais foog ñu institutionnaliser ko donc. mu ah. bokk ci suñu doxin. yaakaar naa lu am solo la. Euh, dëkk yi ko expérimenté gis nañ ci seen njëriñ. gis nga gis nañ ci njëriñ bu am solo yaakaar naa Sénégal jot na parce que foo foo tourner Sénégal Afrique ak ci àdduna si ñu ne la Sénégal dëkku. dialogue interreligieux dëkku dialogue islamo-chrétien mais jot na ku ñëw Sénégal mu ne je vais voir la maison du dialogue ou bien le centre du dialogue interreligieux ñu de la même manière qu'on qu'on visite le, le monument de la Renaissance comme d'autres monuments que qu'on érige notre dialogue en termes de monument pour ku ñëw on montre euh, si li li fii euh, Cheikh Ahmadou Bamba defoon li fii cardinal defoon mu ne mu am benn musée boo xam ne képp euh, Sénégal su demee ba nar a réer ñu ne ah nañu dellu si Euh, je pense que dafa am euh, solo symbole symbole dafa am ci réew. c'est vrai imam symbole dafa am ci réew. Euh, li muy wax noonu dañ ñëwaat après si solution yi ah, ku nekk wax également la ci xalaat mais li mu wax dafa am solo c'est que est-ce que nit ñi bu ñu doon gisit imam yi ak ak le clergé on peut l'appeler comme ça bu ñu la doon gis ñuy gisee peut-être de manière régulière. bañ a toog rek dara am rek ñu gisante wala peut-être dañ ko doon gisee sax souvent au Sénégal mooy dangay gis benn benn benn abbé dem seeti benn sëriñ. Mm. comme li mu ko wax léegi si Senghor rek yooyu tout ça Babacar wala benn sëriñ dem seeti mais est-ce que léegi jotul nag loolu ñu constitutionnaliser ko wala def ko noo xam ne un cadre formel pour Sénégalais yi di si jàngat lu bëri. bon xam nga euh, li nga xam ni mooy euh, problème bi. ñi nga xam ni ñooy autorité yi. waaw yore lépp. ñoom dañ ci am rôle bu rëy. mooy euh, euh, comme que sunu lépp ñoom lañ ko jox. war nañ ci jouer rôle boo xam ni par exemple euh, li ngay wax nii mu mën a am. Mhm. léegi segam ci biir jullit yi moo am problème mu par exemple pour ñu taxawal dara. estomac buñ ci bëggee boole ñeneen li nga wax nii c'est l'idéal mais pour réaliser ko tout d'abord ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, nekk ci diine yi nekk tarixa espèce su espèce su concurrence mm-hmm. moom mooy am ci wàllu théorie moom mooy am aussi ci eh. wàllu kenn ku nekk di sàmm li nga xam ni moom moo di sa kër li nga xam ni moom moo di pénc mi pour ñu daje fii. dañ koy fàtte. dañ koy fàtte. <laughs> loolu nag. mi mel ni garab boo xam ne rek ku nekk ci sa branche nga langaamu. exactement te xamuñu ne bu garab gi daanoo. lépp boole daanoo. kenn ku nekk say euh, say discours. dafay nekk euh, euh, de temps en temps discours yoo xam ni ci sa bopp nga koy yemale. te islaam wala toutes les religions dañuy am pénc pénc moo xam ni dañu fay toog. kenn ku nekk booy ñëw da ngay ñëw doo indaale sa kasketu ni man euh, tijaan la wala murit la wala layen la wala xaadir la danga fay ñëw en tant que musulman ñu jéem a chercher hmm. naka la ñuy def loolu du yomb de imam weer weer waa ngi nii rek weer bi weer bi pourtant pour les musulmans hmm. euh, toog toog ngeen ngeen ñëpp si benn cadre waaye pour ngeen déggoo si sax problème la. exactement te xam nga état bi aussi wax na si dara moom aussi pour nga dugal ko yooyu moom dafa ni. ah président Macky Sall en tout cas. Mm-hmm. waxtaan leen seen biir. boo leen trouver solution ñu jàppale leen. mais souvent nag a un problème. surtout tarixa yi au Sénégal pour déggoo si benn mbir. Euh, ñu ñu baal ma ci terme yi quoi c'est c'est pas méchant uh-huh. mais. Euh, tarixa yi de temps en temps day mel ni ay parti politique quoi <laughs> waaw kenn ku nekk yaa ngi yaa ngi bay mm-hmm. ci sa tool toog toolu keneen sa yoon nekku ci li nga xam ni moom mooy toolu penc mi li koy naatal moom mooy ñu am benn assemblée boo xam ni par exemple ci la ñuy daje di wax seeni xalaat ci li nga xam ni moom mooy problème mu réew mi problème mu réew mi problème mu réew mi benn tarixa mënu ko solutionné tarixa yëpp ñoom ñooy dajaloo mën a di dégager ay xalaat yoo xam ni par exemple dina nekk ay xalaat yuy tabax léegi nag loolu pour mu taxaw ça pose problème <laughs> pour mu taxaw ça pose problème léegi noonu mu amee sur le plan politique bi nga xam ne ñun moom la ñu miin noonu la amee aussi ci ëttu diine bi kenn ku nekk da ngay defe ni say kaddu yi nga xam ni man may majorité dafay peser ci li nga xam ni moom moo di toogaay bi am na ñoo xam ne par exemple jàpp ñu leen sax ni ñii mbooloo lañu boo xam ni lu ñu tuuti tuuti tuuti am nañu droit. pour que par exemple mbooloo mi ñu bokk ci. kon li li ma bëgg a wax rek moom mooy dialogue. dialogue fu mu amul. ban cadre ngay dégg nii këru diine yëpp daje nañu. par exemple amul. amul ban ñi nga xam ne ñoom ñoo yore réew mi mais am nañu benn assemblée. boo xam ni fa la ñuy jéem a solutionné li nga xam ni moom mooy problème mu réew mi. léegi même ñi nga xam ni dañu yore yeneen i diine ñoom ci seen bopp aussi même chose ci lislaam ñoom tamit noonu lañu mel ñi nga xam ni ñoom ñooy église benn am na fii beneen am na fële mais ñun ñëpp en tant que ay sénégalais yore ay kàddu diine war nañu travailler ba xam naka la ñuy di toogee. comme euh, diine yoo xam ni ñoom ñoo nekk ci réew mi boo demee en Europe dafay am eh. boo demee même ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di musulman yi boo demee ci euh, al chia muy euh, waa Iran mm-hmm. ñëpp la ñuy dajale ñi nga xam ni dañu gëm diine ak ñi nga gëmul diine boo ko defee solution yi nga xam ni moom la ñu war a tegal réew mi kenn ku nekk addu ci mais kenn ku nekk yaa ngi beru di xaar sa bés nga woote ñëw nga jëflanteeg gouvernement bi et gouvernement bi léegi la reste yow tu t'en léegi wax nga benn euh, euh, kii bu am solo jubóoguñu sax ci ci weer eh, eh. mënuñu am benn cadre eh. boo xam ni par exemple këru diine yëpp ñoom ñoo fay daje lu ñu wax loolu ñu appliqué ko mm. kii day wax fii tey bu ëllëgee keneen wax leneen léegi nga gis benn waay boo xam ne minorité la moom tamit di wane boppam yooyu par exemple gouvernement bi am na ci rôle bu rëy bu mu war a jouer eh, loolu dala ci amoon comme honorable mm. euh, dans ce cadre là même bu fekkee waxtaan war na mën a am entre jàngu yeeg euh, musulman yi tout ça ban kii je veux